alaikum. mbokk internet yi ñu ngi am mbégte ak contenté euh, di dalal tey euh, fii Kafrine, Kaffrine Coumba Ndoffène Diouf secrétaire général des jeunes socialistes alaikum. maaleykum asalaam monsieur Fall ñu ngi leen di sant leen gërëm di leen dalal ci fii ci Kafrine. ah comme ni ko waxee man maay le secrétaire général des jeunes socialistes euh, du département et de la commune de Kafrine. alors parti socialiste nu mu <laughs> nu mu bindoo fii. waaw kat pastoraliste eh, mi ngi mi ngi am bindin bu baax fii ci Kaffrine mi ngi dund bu baax a baax te ji fi ñu toll mooy suñu euh, vala vente des cartes Kaffrine bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo ci ñoo ci wane xar kanam bi gën voilà commencé ñu jaay suñu carte ñu def suñu placement te ñu ngi versé te ci respecté vraiment timing bi waaw parti moom fii ci Kaffrine mi ngi dund bu baax macha allah alhamdulilah rabbi alamin voilà. léegi euh, actualité politique bi temps yi

instance yoy nak dañ yor volé yi nga xamné ci nga am yeen sanction yi yeen yi nga xamné vraiment mo lay permettre nga jouir de ses droits civiques ba nga fa bo jouirul de ses droits civiques ñoom amuñu droit bind la ci liste électorale te ministère de l'intérieur loolu def té mënu non def leneen lu lolu voilà. ci élection présidentielle ñu jëm ni yeen allié wa parti socialiste da nga di am candidat ou da nga di jappalé continuer di jappalé Macky Sall. wa ñun parti socialiste en tout cas euh, xam nga biñ jubee élection législative wàccoon nañ ci base bi wax lan lañu lan lañ bëggee ndax dañoo bëgg ñu dem ñun dong wala dañoo bëgg ñu dem ak coalition bu ñu dem ak coalition ndax dañuy des ci des ci benn bokk yaakaar wala dañuy benn coalition dëkk yu ci bëri waxoon ne ah dañoo bëgg a des ci coalition benn bokk yaakaar parce que mooy njëriñu Sénégal loolu ci élection législative loolu législative yi weesu la woon élection yi présidentielle yi di ñëw nag yaakaar nañ tamit ñu def lu mel noonu laaj base bi. ana nan lañ bëggee ñu demee ci élection yi en tout cas ñun fii ci Kaffrine wala man au niveau des jeunes socialistes li ma waxoon mooy que ne li ñu daloon 2012 ci Benno Siggil Sénégal waru ñoo dal 2019 2012 Benno Siggil Sénégal kenn ku nekk muy Tanor muy ñas sa parti dañ ne waxoon ne yow yaa war a jiitu yaa war a jiitu bul nangu keneen ki jiitu ñu xëccoo ba benn bi tas keneen Macky Sall fële fële ku kenn yaakaar woon falu président kon tey bu ñu amee beneen coalition. 2012 ba léegi muy dund yaakaar naa lépp lu ko war a suuxat lépp lu ko war a jëmale kanam ci la parti yëpp war a sukkandiku nga xam ne ah li ñu daloon dootuñu dalaat dinañ boole suñu suñu doole li ñu sumboon nal ko di ko jëm ba ba léegi ñu fexe nañ ko yeggalee au delà de 2019 te loolu am naa yaakaar ne parti bi dina interroger base bi ci wàllu woowu te ñun de bu ñëwee fii ci base bi dañu wax ne PS na présenté candidature am au niveau de Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar ku ñu tànn na ko ñëpp jàppale ànd ak moom. voilà. PS am candidat candidature am ne ko présenté au niveau de Benno Bokk Yaakaar léegi me Benno Bokk Yaakaar mais président Macky Sall naturellement mooy doon candidat encore Benno Bokk Yaakaar yéen boo leen bëggee présenté seen candidature ay njeexi xam nga lépp waxtaan la lépp waxtaan la benn Benno Bokk Yaakaar ñoo ngemb fi mu nekk nii président Macky Sall 2012 avant laata 2012 parti bu ci nekk muy PS di AFP di PIT kenn ku nekk ak yeneen danga nga ne woon diw sàngam ñoom la suñu parti tab pour mu dem xëccoo ji te bennoo sigi bennoo bennoo sigi Sénégal loolu noonu bu ñu jubóo woon ba tënku ci kenn ne ñeen ñu ngeen yebal yéen suñu suñu parti ñun ñoo nangu ne kii la ñuy tànn kon yaakaar naa du am jafe-jafe te ci ya bii tamit nag yaakaar naa loolu la ñu war a def parti bu nekk ki nga jàpp ne war na la mën a nekk sa candidat présenté ko ci bennoo bokk yaakaar bu ne ba foofu Macky Sall nag mi njiite mbir mi. suñu waxtaanee seen biir jàpp ne kii war na mën a continuer projet benn bokk yaakaar bi xayrun ñu jàpp ko bu ñu jàppee ne projet bi moom kat am na ci ay limites ñu waxtaan rek ba nga xam ne benn bokk yaakaar du tas te loolu mooy intérêt parti allié yëpp yi sekk app yi sekk parti kii bi yëpp parce que tey jii parrainage bi dafa régler lu bëree bëree bëri parrainage bi dina tax ba ne dootuñu am ay candidat xusma ñàpp dootuñu am ay candidat cambar cambar képp koo xam ne yaakaar nañ ne war ngaa mën a jiite réew mi askan wi dinañ la defal parrainage ba nga ba nga xam ne dina permettre ñoo am ay candidature yu sérieuse loolu nag bu amee il faut que benn Bokk Yaakaar téye seen lim boobu noonu parce que kuñ naan kuñ digal pour nga tas ñeneen ñeneen ñi la koy digal ña nga ñi ngi booloo kon loolu war na Bokk Yaakaar war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax boolee seen doole pour que candidat bi ñu am ku mu mënta doon mu doon kii wuutu wala kii continuer liggéey bi. Euh, tenor mom il est out parce que waxon na ne il va plus se représenter ñi ñi doon yaakaar Khalifa Sall ngeen am problème ak mom pratiquement mom candidat ñi ñi ñi voilà c'est pas truc mais après ces deux là yeen kan ngeen xalat mu ne leen rek xam nga lolu poser cette question euh dana accepter Sall tamit dem na voilà xam xam xam nga lolu lolu laaj ko laaj ko moy moy moy moy moy ñak xam PS deug deug deug deug deug tey jii li li. maa xam pees li yóbbu tey jii li yóbbu tey jii li yóbbu xalifa yóbbu asata mel noonu la budul man du doon keneen te yaakaar naa ne pees nag Senghor ba léegi li mu formé ci ay cadre car macha allah kenn ku ci nekk war nga mën a yor réew mi tey Kaffrine fii ñun waa Kaffrine ñun ñoo waxoon 2016 ne Ousmane Tanor Dieng yow boo bëggee ñu jàppale la boo bëggul dañoo bëgg Abdoulaye Wade nekk suñu candidat union régionale Kaffrine présenté ko pour mu nekk candidat parti socialiste kon ñun position ba nekkoon ba léegi ñu ngi ci ba tey jii. tekkiwul nag ne wuñ keneen feneen ne diw sangam war na nekk candidat ci parti bi waa Dakar nañ ko nañ ko waxal Khalifa Sall waa saint waxal ko Aïssata Tall Sall waa Kaffrine waxal ko Abdoulaye Wilane waa Kaolack waxal ko Serigne Mbaye Thiam waa Louga waxal ko waxal ko waxal ko Aminata Mbengue Ndiaye waa Thiès waxal ko Ousmane Tanor Dieng xam nga loolu bu ñu ko defee ba ku nekk béy sa waar ci tool bi yaakaar naa ne dina permettre parti socialiste mu suqaliku bu baax a baax a baax te jàpp ne kenn ku nekk ci ñoom rek. ëppale woo sa morom dara loo xam ne war nañ la mën tànn bàyyi ko ba nga xam ne kontaan bi nga xam ne yow dañ la tànn ngir parti socialiste dañ la tànn ngir yaakaar dañ la tànn nga jàpp ne yow mën nga porter projet bi nga xam ne l' ensemble des militants yi bi parti socialiste nga xam ne nag ñoo ëpp ci réew mi moom lañ bëgg moom lañ bëgg ku leen ko jëfal yoon moom yaakaar naa ne mooy mooy mooy idéalu candidature parti socialiste te fii ci Kaffrine dañ ñun ñu bëgg mooy Ablaye Wilane vraiment nekk candidat d' abord pour jiite parti bi waaye pour nekk candidat ci benn mbokk yaakaar pour jiite réew mi vous demandez à ce qu'Abdoulaye soit le candidat du PS Nous demandons à ce qu'Abdoulaye présente à la candidature du Parti Socialiste. Oui, et à la candidature pour les élections présidentielles. Oui. Vous avez beaucoup d'ambitions pour euh, <laughs> notre ami Bilan, c'est très bien. C'est des ambitions, mais ce n'est pas prétentieuse. Parce que, Kouham Parkouram, Kouham Djardjaram, Ousmane Tarondien m'a dit Abdoulaye Wilane, c'est lui qui incarne le PS qui gagne. Nek opposition qui gagne, nek ngour qui gagne. tey jii am na waa kat ñu jàpp ne nguur gi dañ koy xeex pour wàññi dooleem te loolu tax ñu gën a jàpp gën a jàpp ci moom parce que lam nekkoon démb ba tey ak barki démb ci la sax mooy li mu nekk déggu na ci te loolu nag ku ko am ku mel noonu am nga base bu am solo boo xam ne boo wutee feneen feneen keneen bay waaram feneen rek ah yaakaar naa ne bés mu nekkee candidat waa waa Sénégal dinañ gis benn mbir voilà. jërëjëf